asalaamaaleykum àdduna asalaamaaleykum Sénégal maa ngi tudd Mamito dëkk Pikine Tali Bees man maa ngi supporté Sénégal parce que je suis sénégalaise je préfère muus <laughs> parce que ragal naa ko mais man moom laa bëgg mais moom ñemewu ma ko ñemewu moom dama ragal gaynde <laughs> ah je préfère Sadio Mané. parce que man moom bëgg naa Sadio Mané mais ba mais Gana moom hmm, man Sadio Mané laa bëgg parce que man bio mi jëlee quoi en fait <laughs> man banlieusard laa dëkk Pikine laa bëgg parcelle moom amoo fréquentation lu bari loolu moo tax mais Pikine laa bëgg fii laa dëkk fii laa juddoo fii laa màggee en fait oh Eumeu Sène musu ba kaa faral publicité am sax du ma ko seetaan bëgguma Balla Gaye maa ngi si Eumeu Sène bëgguma Modou Lo maa ngi si Balla Gaye <laughs> rek faralatuma la maa ngi si Eumeu Sène parce que man Pikine laa dëkk tous les deux <laughs> man ma see wax na ñëpp samay mbër lañ man Bambara laa Camara laa sant maafe laa bëgg fu <laughs> ma ko toggalee damay jooy maafe laa bëgg <laughs> oh, tous les deux parce fu ma demee Touba Sereer lay yëg de fu mu ñëwee fii tamit oto pass fukki dërëm dem fu ma jëm <laughs> ah, en fait damay jàng am liggéey parce que genre liggéey moom mu si loxo yàlla mais dama bëgg jàng ba pare doo koy ut liggéey parce que a yii nii moom ndaw bu soxla jàng laa ou Pape Diouf j'aime pas man maa ngi si Wally Seck <laughs> Wally Seck waaw ou Titi moom dafa màgget maa ngi si Viviane parce que <laughs> ñun moom lañ bëgg <laughs> ñun jeunes yi mom ñoo ngi si Viviane quoi man maa ngi orange maa ngi Tigo parce que orange moom am na ay points sargal voilà Tigo fa lay gindee connexion. en fait man moom gaynde dama leen di ñaax ñu xam ne ñun ñoo ngi seen ginnaaw bu tiit bu ñu ragal parce que ay doomu gaynde lañ voilà parce que ñun moom bëgg nañ ñu gagné am suñu coupe waaw parce que ñun ñoo ngi nii génération 2005 yi mosuñoo fekkee fu ñu gagné wala genre coupe ñun daal dañ leen di ñaax ñoo ngi leen di ñaanal chaque jour bu ñu jullee waaw. ou en fait sama papa mu gaañu na. genre dama naan sama yaay parce que sama yaay laa nekkal voilà moom sama xarit moom la ëpp lu may waxtaanal parce que sama papa mu gaañoo yàgg na quoi. sama yaay en fait maa ngi koy souhaité dama ko bëgg a yóbbu Makka nag waaw gaaru ko oto bu ngande <laughs> mu dugg si voilà ñu xam ne doomam moo ko jox waaw. ouh man daagu daan moom. xanaa moom fi tuxoo yàggul mais maa ngi daagu daan daagu daan laa am sa dëkk foofu laa dama raciste quoi <laughs> allez merci <laughs>